chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer jëf mbokk yi téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi seetaan di nuyu di leen a sell bu nuyoo ci weeru màggu sell wi di saxur bi nga xam ne am ngeen ko ci seen Rafah TV di ziar bu baax Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te wéral ay cëram ak mboolem xalifa généraux yi imaam yi boroom xam-xam yi ak kilifa aada yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey nag ci seen émission jotaayu koor seen émission jotaayu koor nag nag euh, tey ñu ne ma waxtaanee euh, ponk yi fasante ko ponk bi nag lan la mooy diggante way dencante bi maanaam di waree fu sëy ñu ànd ceeg euh, sama càmm ñi nga xam ne ñoo teew ci plateau bi Serigne Bara Fall ak Serigne Moustapha Dieng ak Serigne Abdoulahat Ndiaye tey ñoo teew ci plateau bi Serigne Bara maa ngi lay nuyu di la nga nuyoog askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna Kumba ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyoo tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ak eh, ñi nga xam ne moo leen bokkal jotaay bi fas yéene ànd ak ñoom ci waxtaan wi nga xam ne moom lañ fas yéene amal mu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu mbirum sëy xam naa kon soxna si dañuy tënk foofu incha allah taala ci eh, nuyoo bi noonu. jërëjëf Serigne Bara ci nuyoo bu am solo boobu ñu daal di jox rek eh, Serigne Moustapha Dieng mu daal di nuyoo. waaw jërëjëf soxna Kumba ñu ngi lay nuyu di la ziare di la baal wax bu baax baax di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy bàyyi seen site internet bu Rafah TV. di nuyu baax a baax a baax euh, sang su tedd si nga xamante ne ñoom nga ma booleel plateau muy ak dolli ko ci man ku ci mel ne Serigne Bara Fall maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare Fall ko mburu di nuyu bu baax a baax a baax a baax Serigne Abdoulahat Ndiaye di ko ziare bu baax a baax a baax di nuyu mboolem téléspectateurs yi di tegandi foofu rek suñu kàddu euh, ba wax ji dellusiwaat suñu kaw. Mhm, jërëjëf Serigne Moustapha ci nuyu bu am solo boobu Cheikh Abdou Lahad Ndiaye moom sama sant moom moo ko fi dàqale ci plateau bi maa ngi lay nuyu nga nuyoog askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf soxna Kumbalo Gaydal ñu ngi lay nuyu di la ziyaara lu bari di nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci seen chaîne bii di Rafah TV. di leen ziar di leen ndokkeel ci euh, weeru tedd wi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal euh, jotaay bi sëriñ Bara Fall naka noonu sëriñ Moustapha Dieng di delloowaat nuyoo bi xam naa ba mu dellusiwaat incha allah ci. ñu ñëw rek euh, ci thème bi nga xam ne mooy wareefu sëy Serigne Bara Fall Serigne Bara way dencante yi ci diggante góor ak jigéen sëy bi naka la war a mën a ame bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbi sahli sadri wa yassir li amri waxlan uqdatan min lisaani yafqahu qawli soxna Kumba ñu ngi delluwaat di la eh, nuyuwaat baax a baax ak mbokk yi fi toog yëpp eh, fas yéene tontu sa laaj bi nga laaj ci lu jëm ci diggante ñaari way dencante waaye eh, Sëriñ Tuuba dafa waxoon lu am solo loo xam ne war nañ koy bàyyi xel baax a baax ndax dafa waxoon ne lépp loo xam ne nii mu kàllaf mi ngi koy jëf war naa xam li nga xam ne mooy àtte sariya yi ci aju kon nag bu dee ci wàllum sëy la bu dee ci sariya faaw mu am góor ak jigéen góor ak jigéen ñooñu nag ñoom ñaar ñooy mën a eh, daje su ko defee léegi ab sëy daal di mën a am kon loolu kon lañ tuddee maanaam jëmmi sëy te te bay xool baat bi ci mooy ak duggaloo ndax diggante ñaar ñi dencante ñoom ñaar dañuy duggante moo dañ ko misaal lu mel ni eh, jaas ak mbaram wala boog paak am mbaram ñoom ñaar ni ñu duggante nga xam ne ñoo mënuñoo ko wala boog li ñu tàqalikoo du bari loolu kon ci lañ jële cosaanu maanaam jëmmi sëy ci diggante ñaari way dencante kon loolu kon ci xamle googu ci tënk rek ci la dugg nag daal di xam dëgg dëgg dëgg lan mooy sëy ci sariya ndax jar na leeral baax a baax ndax bu dee ci wàllum sëy ci sariya am na atteem waaye tamit am na liñ tuddee maanaam ay arkaanam waaye tamit am na tamit liñ tuddee maanaam sart yi tax maanaam sëy bi mën a wér bu dee nag atteem sëy moom ci sariya suñ borom dafa wax ci alquran ne fankixu ma taaba lakum min annisaayi masna wa sulaasa wa wax ne ni ngeen takk ci jigéen soxna di tàmbalee ci benn ba ci maanaam ñeent yonent bi salaam waxaat bin xadis daane manista daane yaa masana subaa bi manistata minkumul baata fales fal yada sa waj mu ne yéen ñi nga xam ne da nekk maanaam ay waxambaane ku dem ba toll ci yéen yëg na kat war naa denc soxna su boobaa kon léegi na takk soxna foofu nag boroom xam-xam yi nag am woote ci ciy woote ci ba xam sëy luy àtteem ñii ne sëy dafa nekk lu war ñii ne maanaam dénction dafa nekk maanaam loo xam ne maanaam dafa dafa daggan wala boog dañ ko sopp waaye buñ sukkandikoo ci aay boobu ak ci xadis boobu li gën a wér mooy ne dañuy wax ne maanaam takk soxna ci sariya li cosaan mooy dañ koo sopp nekk loo xam ne maanaam dafa nekk waajib ndax donte aay bi dafa ñëw daal digle te ndigal ñu ko xamee ci wàllu usul ñu wax ne al amru lil mooy lépp loo xam ne yàlla ko santaan rek yonent bi yonent bi laa ko santaane kon dañuy ne dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk lu war waaye nag borom xam-xam yi rawatina ci masab Maalik ñoom bi nga xam ne ñun ci lañ sukkandiku ñoom dañuy wax ne lii cosaan ci maanaam jëmi si atte mooy dañ koo sopp mën dóob la ndax aaya ba lañ ko teg dene fin fa in xiftum ala tahdiloo fa waahida mu ne kon suñu borom may na leen ngeen takkale tàmbalee benn ba ñeent waaye su ngeen demee ba xam ne su ngeen takkee ñeent yooyu kat du ngeen ci mën a yem yéen a ngi defaat leneen kon léegi maanaam benn boobu doy na léegi nag ci la borom xam ne sukkandikoo daan ne kon comme que suñu borom dañoo digal ba noppi nag teg ci maanaam kon na nga taxir mooy na nga tànn te ndigal ak tànn mu ak tànn mënta ànd ci misaal tey day mel ni koo xam ne dafa woor ba ngoon ñu tegal ko ñaari si yu nga xam ne moom du forcément mu yëpp waaye xool ba nga xam ne rek moo ca moo gën ci moom mu daal di koy waa aussi waa koy waa koy mu daal koy naan kon mbiinu sëy kon bu dee ci atteem ci wàllu sariya moom li gën a dëgër moom moo jëne dafa nekk lu ñu sopp waaye tamit dañoo sukkandiku ci benn xadis boo xam ne mooy xadisu Saad ibn ibn Abi Waqaas muy nettali ne yonent bi yonent eh, dafa mas a daa mas di wax ak ku ñu ku ñu tuddee maanaam Usmaan ibnu Mazun dafa nekkoon daal koo xam ne moom bëggutoon mbiru mbiru soxna dara beru di jaam yàlla kii yooyu yonent bi yonent bi daal koy woo daan ne ko man maa ngi leen gën yàlla gën leen xam yàlla damay julli damay woor tamit damay damay eh, damay takk soxna daañu nag takk soxna daa bokk maam ci sama sunna man ne képp ko xam ne kon bàyyi nga ko bàyyi nga sama sunna moo tax ko ñoom ci lañ sukkandiko maam li nga xam ne mooy jëmmi daal eh, maanaam eh, sëy ci sariyan suñ ko waxee maanaam dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk maanaam jëmmi manduub loo xam ne dañ ko sopp waaye nag ci loolu teewut ne borom xam yi ba tey nee nañ jëmmi sëy ci boppam jëmmi sëy day séddalikoo tamit bu buñ dee xool ci liñ tuddee al ahkaamu shar'iyya moo xam dafa nekk liñ tuddee al xukmu taklifi ñu koy xamee wala wala boo liñ tuddee al al xukmu euh, al wadani day séddal ko juróom ndax sëy am na foo xam ne maanaam mën naa war ci nit ki xam ne daa war ci moom mu dem soxna am na koo xam ne sëy dañoo sopp ci mu def mu takk soxna am tamit koo xam ne dañ maam dañoo dañoo sib ci moom mu takk soxna waaye am na tamit koo xam ne dafa xaram ci moom mu takk soxna yëpp na kon dafa jar dafa nekk ay points yoo xam ne nii euh, maanaam tamit jar na yaa koy euh, mu leeral xëy na euh, bu la neex incha allah mën na ñëw tënk foofu buñu dëkkaate daal di wax nag léegi yi nga xam ne mooy sëy mooy sëy maanaam sëy yi nga xam ne war na ak tamit yi nga xam ne maanaam ak tamit yi nga xam ne warut yooyu waaw. waaw waaw mi noonu incha allah. jërëjëf Serigne Moustapha gis nga li nga xam ne rek noonu la ko Serigne Bara Fall waxee nag nga ko jàngate ci nga xam ne ñaari way dencante yi. soxna Kumba maa ngi lay delluwaat di la nuyu di nuyu baax a baax sëriñ Baara ci euh, wax ci jotale ji motale jooju moo xamante ne def na ko jëme ci laaj bu am solo bi nga xamante ne laaj nga ko muy ci jëmmi sëy ci diggante doomu aadama ak moroom doomu kon dégg nañ ci waxam ji ne sëy ci boppam yàlla moo ko digal jaam ñi ngir ñu di ko def def gi nag kenn ku ci nekk yàlla daf laa dogal nga war a denc ci soxna yi war a commencé ci benn ba ñeent. mu nekk loo xamante ne pour man mott lente lay doon ci diggante góor ak jigéen ndax kenn mënu cee dem bàyyi moroomam yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu daganalee say kon daf ñoo daganalal sëy ngir ñu mën a sàmm ngir ñu mën a organiser suñu dund ndax suñu bàyyi woon rek booyal ñu ñu mel ne xar yi ak bàyyi may su boobaa danañ mën a dem ba da gis noo xamante ne nit dana takk sax ba takk ku mu a takk moo tax ci biir alxuraan da nga fay fekk uh, aay yi dëggal ne nit ki dafa war a am fu mu yem ci takkam xurimat aleykum umahatukum ba ba ba ba aaya ba jeex kon day waree ne kenn ku ci nekk am na fu ñu la may nga takkee fa am fu ñu la may nga takkee fa kon lislaam dafa dafa dafa tëral ay mbiram ci yoon yàlla dafa dafa dafa dafa teg ay sartam sëy nag buñ ko waxee ci àdduna comme ni ñu koy dundee nii actualité mooy ñaari way dencante yi mottalente mottalente gi nag moom mooy kii dafa am lu manqué kii am lu manqué ñoom ñaar ñu mën a ànd peeroo waaw jafe na jafe na waaye nag lu ci mën di xew kenn ku nekk ci ñoom ñaar rek bu xamee lu ko yëkkati du jafe tout d'abord ñu xam ne jaamu yàlla la sëy jaamu yàlla la jaamu yàlla nag bu ca neex bariwut sëy yàlla la bu kenn ku nekk xamee la ko war rek sëy bi du jafe góor gi xam ne dañ maa jox soxna si ngir ma jaamu ci yàlla soxna si xam ne damay sëyi ngir jaamu yàlla lu ko def <coughs> ñu jégal ma <coughs> tàngaayu koor gi la euh, ñu jégal ma lu ko ca fekk ëllëg ci bénéfice mu xam ne da caa war a am lu mel ne doom lu mel ne sëy bu neex lu mel ne dem am comportement boo xamante ne bu bu bu stable la loolu lépp ci ci ci ci bénéfice waa ndogalu yàlla suñu borom la waaye sëy moom intention jaam yàlla la ndax bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy suñu référence ñun ñun ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi jullit ñi wekk ci Serigne Touba gis nañ ne soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso mooy suñu delluwaay jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ñooy ñooy jigéen ñi murid ak jigéen bépp jullit bu bëgg lu baax bu ñu taarix nettalee ak demam këram demul woon kër ngir day dem ngir ngir ngir ngir wàcc ci ay ci ay étage demul woon kër ngir day dem ci comportement boo xamante ne comportement bu bu bu mais dafa dem ngir jël intention jaam yàlla ndax di ñu taarix net lii te ñu yàgg ko dégg mooy bi nga xamante ne war na ci kaw fas wi di dem kenn ku ne gis na ne bi mu yónnee alxuraanul karim ñu indi ko ko ba mu génnee yam ci aaya bi nga xamante ne moom la suñu borom di wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam mooy aaxiru nabiyin wal mursalin ci la xamee ne kon jubluwaayoo mooy dogu rek am am am lu fi te kenn ku ne gis na lim am amu amut loo xamante ne ab yonent la waaye ki mu am euh, fees na àdduna kon jaam yàlla jigéen na sëy ngir doomam jigéen na sëy ngir ngir ngir ngir àjjanaam waaye jigéen na sëy ngir jaam yàlla ci ndigal li ko suñu borom jox na ko jaamu ci yàlla kon daal loolu laa mën a joxe ci kàddoom ndax xëy na bëgguma téye kàddu yi bu baax waaye daal na jigéen daal jàpp ne ak góor sëy jaamu yàlla la sëy lu la ca fekk ca bànneex dala caa dab muy doom muy comportement bu baax muy euh, comme ni ñu ko gisee nécessaire yi nga xamante ne dañ koy soxla wu ci àdduna loo ca am rek xamal ne da bëggul woon ca contrat sëy ba sëy daal ci li ci li ci am solo mooy jël jaamu yàlla. roy maam jaar rek. ndax gis nga ñu taarix net li ci moom soxna jaaratullaahi ba Mariama Bousso si jamono yi nga xamante ne boobu la boobu la boobu la nekk ci kër. waaye ñi tamit mel ne Mamour Anta Sali. góor ñaa ngi mel ne Mamour Anta Sali bu ñu nee góor ñaa ngi mel mooy la plupart duñ duñ généraliser ne 100 am na fi ay ay ay ay ay soxna jaara yoo xamante ne ñi ngi jéem a roy yoonu soxna jaara am na fi ay Mamour Anta yoo xamante ne ñi ngi jéem a ay Mamour Anta Sali waaye léeg nga am soxna jaara moo xamante ne yàlla daf koy nattoo am am am am Mourtala Fall su boobaa nu def yow da jël intation roy ci maam jaara yàlla nattoo la am daa Fall su boobaa nag na def mooy xam ne yow soxna jaara yàlla mayoon na ko jukko yi mat. nga matale ko nga matale ko topp topp ay ndigalam topp ay bànneexam ci li dagan fexe ba sa bañ koo xool ci jëmmi doomu aadama mais nga xam ne yàlla moo digle nga war a topp rijaalu xawaamuuna ala nisa yàlla moo dogal góor ñi gën a foor jigéen ñi nga xam lépp loo xamante ne kilifteef la nga jox ko ba mu jeex tàkk nga jox ko kilifteef gi ba mu jeex tàkk ci li nga xamante ne moom moo war seen diggante yéen ñaar xëy na bu ñu gën a yaatalaat dañ duggaat ci yeneen thèmes yi nga xamante ne mooy warteef yi war seen diggante yu ñu demee yooyu dinañ ci gën a yaatal bu baax a baax a baax waaye daal nañ xam ne sëy moom farata la waaye neexut tamit neexut moom fay moom neexut sëy moom li ma ci wax faral gone wax gone rek nee naa sëy ñaara ci neex ngoro gi ak céet gi su ngoro gi neexee jeex na su su céet gi jàllee rek xamal ne jafe-jafe yi ñëw na bis bu seet bis bu ñu naan heure bi daaw nga sëy si woon jàppal ne sëy ba moom boo tasee am Moustapha Dieng nag moom ba mu seetal la ma bàyyi adéet ah, waaw waaw waaw man moom man man jigéen nag moom togguma sama bopp waaye damaa mën jigéen ndax ko bokk maa yow loolu daal laa yore jigéen loolu neex na ah, macha allah kon nag eh, li nga waxee rafet na ñun jigéen ñi nañ gën a roy rek ci maam soxna jaaritulaa jënd jigéen ju am màggal gi ah, ndax ku ne xam na ne nag da daan xar gaalam nag di ci maam jaara waaye góor ñeet nañ def ah, la ñuy waxtaane yéen ñi nga xam ne ni ñuy seetaan ci Rafah TV ñi ngi ci plateau bi nga xam ne mooy wareefu koor liñ ci waxtaan nag mooy ponk bi nga xam ne macha ponk fasantikoo la di waree fu sëy euh, sëriñ Abdou Lahad euh, ku ne xam na ne euh, sëy yi lu bari bari am na ay rëng-rëng góor gi nga xam ne yor na soxnaam ci biir kër gi yéen a ngeen lay def ba tax daal doom ay rëng-rëng ci biir kër gi. jërëjëf soxna Kumba ci laaj bu am solo boobu nga xam ne laaj nga ko di fàttali bokk yi ba tey seen jotaayu koor tey tomb bi mu indi mooy waxtaane ab sëy waree fi sëy Euh, soxna Kumba nga laaj laaj bu am solo muy góor nan la war a yore soxnaam ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ Baara leeral na lenn ci àttey sëy wax ne sunna la soo xam ne yonent bi sallallahu moo ko def santaane woo képp koo xam ne man nga ko man istataa minkumul baata falyatazawwaj waaye teg ca ne ndax sëykat mooy tax nga damm sab gis mooy tax itam nga mën a ñoŋ kon ndax mel ni sëy dañ koy def ngir mën a ñoŋ waaye dañ koo def itam ngir eh, ta'sis mu asasa sos benn société boo xamante ni bu mucc ayib lay doon comme ni ko sëñ Moustapha waxee bu amul woon daanaka nit ñi dañuy dund comme ay bàyyi ma comme am na nag dañ koo war a organiser ñu xam ne góor moo fare kaw ar xawaa xawaamuuna ala nisaa teewu itam jigéen ñi yàlla jox na leen cër berel na leen itam loo xamante ni ñoom rek ñoo ko jagoo ndax ci xadis abu hurayra nee na wala aïcha yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen bu defee juróom yi dugg aljanna loolu jigéen rek moo ko am danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi waaye góor mi nga xamante ni moom la yàlla jox kilifteef ci jigéen dafa am lu ko ca war dafa mel ni war naa toggoo ab coono ci xam ne responsabilité dëgg-dëgg la am responsabilité ñu dénk la sa moroomu gor mu bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi këram doy loolu léppi waajuram ñëw ci sa kër ñëw ci sa kër pour sëyal la di daw ci say waaw di moytu say tere kooku buroo koo jàppee ab jaam boo jënd ni ko Sëñ Tuubaa jàngale woon jigéen ñi dafa am ci ñoom ñetti jikko yu nekk ci ñoom wala fii ñoo koy wax nee nañu dañuy fàtte démb xeeb tey yàkkamti suba Mm-hmm. wéet naa bi nag. dañuy fàtte démb waaye nag exception day am règle boo gis li kulli xaaidatin istisna koo xam ne day fàtte démb xeeb tey yàkkamti suba kooku bu ànduta ko mën a muñ soo moytuwul du ko mën a muñal loolu tax conséquences yu bëree bëri di feeñ ci biir sëy yi waaye góor gi na xam ne am na ñett yoo xam ne mooy yi munta ñàkk xam na sëñ baara dana ci ñëw wala fi dañ koy tënk ci nakasa muy Euh, dépense dépense ko yow yaa ko war a dépenser yaa ko war a financer moom jigéen ji du la wàcc ba mukk ci àddina li feeg yéen a ngi nekk euh, ba ca topp mooy dëkkal ko waaye ba ca topp itam mooy dëkkoo ko mooy day del lépp day del sat man istataa minkumul baa koo xam ni ñett yi nga ko ci jigéen su boobaa da ngaa war a denc soxna su ko defee góor gi ci boppam war naa xam ne responsabilité sàmm sàmm rek dafa doon lu jafe rawatina nga sàmmu jigéen mi nga xamante ni xëy na dañuy wax ne ñoom seeni xel xëy na matut su ko defee nga war koy muñal war a fexe ba bu mu ñàkk dara bu mu gis dara loo xamante ni war na ko am ci kër gi di ko jeexi di ko wuti ca biti kilifa gu baax day wax ne bokk na ci wareefu kilifa fexe ba ña nga yilif soxla am soxla ba noppi seeni soxla seeni xalaat jéggi la kon jigéen ngir nga mën koo ngir nga mënal ko day fekk ne eh, li muy soxla lépp nga mën ca sa kéemtalaay kàttan di ko ca defal ndax loola mooy jur instabilité ci ab sëy ab sëy boo gisee mu am rëng-rëng benn am na ci àq yoo xamante ni waroon naa am ci ku góor ki njëkki ca muñ ñëw ci ku góor ki ci jigéen ki loola bu manqué rek muñ googu bu amatul rek dafa mel ni sëy bi dootul dootul dootul neex ndax sëy dafa jafe dafa métti te dafa yàgg te ngor rek moo koy mottali ni ko sëñ Moustapha waxee daanaka fan yu njëkk yi rek moo cay bànneex la ca des lépp Euh, sàmm xam ne ne ak jaamu yàlla la su ko defee itam waree fu jigéen nag ca biir sëy ba mooy mu topp borom këram ataa waaye nag la taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq kenn du topp mbindeef ci moy suñu borom subhaanahu wa jigéen buy topp borom këram day fekk borom kër gi mel ni li nga wax mel ni sëñ Mor Anta Sali Maam day fekk góor ga mel noonu ndax góor googu cam moom lañ yaakaar ne bu gërëmee soxnaam ngërëm ma ne loola dana rot ba rogalaat eh, eh, ngërëmul suñu borom dana ci man a ajo waaye góor goo xam ne da mel ne eh, góor goo xam ne da ngay da nga jàpp ne yow yaay kilifa di doxe sa sago nu la neexee ci jigéen ñi loola su boobaa nekkul ne topp la dëgg-dëgg à 100 pour cent mën naa jur njariñ wala mu jur ngërëmal suñu borom subhaanahu wa kon góor moom la ñu jox jigéen ngir mu saytu ko ngir mu ñoŋal ko ngir mu wattu ko moo ko war a protéger moo ko war a dundal moo ko war a dëkkal moo ko war a dëkkoo kon yooyu bu xasee ba am sëy bi commencé naa am euh, stabilité ba ca des itam muy euh, tabaadulul ma xàbba wal ma mawadda mu mel ni kon suñu borom dafa dogal ab sëy ngir ñuy man di weccoo ak cofeel waaye weccoo itam yërmande ñu ne cofeel gi dañ koy dénk jigéen ji ndax moom moo koy mën a dundal bu doon ak garab la waaye bu fekkee yërmande la moom góor lañ koy dénk ndax ci moom lañ ko yaakaaree mu doon ñaar yu am solo warax wa rahma mawadda muy cofeel gi jigéen ñi ñoo ko yor ndax wàllu jonge gaag nañuy def ba seenub sëy ñoom tam dañu ah mooy seen wareef cofeel gi parce que dañ koy maanaam moom lañ ko dénk mais teewul nag waru koo bàyyee góor gi. Mhm. yërmande itam góor gi lañ ko bàyyi dénk mais jigéen ji wala góor gi waru koo bàyyi ak jigéen ji kenn waru ca bàyyi sa waaye nag bu dee cosaanul cofeel ga moom jigéen ji lañ ko dénk bu dee cosaanul yërmande góor lañ ko dénk ndax moom moo ëpp doole itam moom lañ moom moo yor responsabilité bi nga xamante ni mooy njëkk moo jiitu kon ñaar yooyu dafa am yoo xamante ni dañ koy bokk am yoo xam ne dañ koy dañ kenn ku nekk ci moom mooy eh, ka ca gën a yell ca moromam. muy cofeel gi di yërmande kon ñaar bokk ci yi nga xamante ni bokk na yi tax ab sëy mën a am stabilité yooyu nag bu ci amut ngor amu ci ndax itam bëgg moom dafa war a doon loo xam ne dafa war di continuer cofeel yërmande itam dafa war di continuer waaye nag yërmande day fekk ki ngay yërëm mu doon ku mat a yërëm waaye koo xamante ni xëy na déggalu la mais jigéen xelam matul. xelam matul waaye nag dafa war a nag di dégg parce que doo latoo rek man sama jigéen laa sama xel matul damaa gàtt xel bu ma neex ma def lu ma def rek la ma cay mujjee mooy baal ma ma baal la loolu ci góor la ñuy xaar mu baale waaye nag jigéen ci boppam war naa xam ne mbir mi jaamu yàlla la mën na ci am aljanna ndax ci xadis ba moom mu junjoon ci tàmbali ba jigéen bu defee ñeenti yi wala juróom yi dugg aljanna daf caa bokk wa ataat eh, amra zawjiha mu topp ndigalal borom këram isa sa isa sallatil maratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha daxalatil janna ñeent yi bu ko defee dana dugg aljanna mooy bu jullee juróomi julleem woor weeru koram wattu boppam waaye itam fexe ba def ndigalil borom këram su ko defee dana dugg aljanna ci bunt bu mu ko soobee kon jigéen war naa fexe bay topp borom këram ci loo xamante ni lu dagan la wuute lool nag ak lii xew lu la neex rek wala lu neex sa borom kër nga jàpp ne dagan na am na ñoo xam ne dem nañ ba jàpp ne ngir nga bégal sa borom kër daal lu la neex wala lu ko neex rek day daal di dugg ci biir baatu dagan te fa dagan nag ak ñàkk a dagan moom mbirum suñu borom la subhaanahu wa taala mooy seet lu ko neex mu daganal ko seet lu ko neex mu xaraamal ko waaye daal fex war ngaa fexe ba booy topp sa borom kër na ko topp ci loo xamante ni lu neex suñu borom la loo xam ne ndigal suñu borom la. loolu danañ ñëw ci sëñ Bara xam a gën a ah, yaatal kon nag xam naa jigéen ñi moom euh, am nañ benn coono mooy kon nañu gën a góorgóorlu rek euh, ginnaaw lu jóg ñu ne jigéen ñi la kon nañu gën a góorgóorlu toppatoo borom kër gi toppatoo njaboot gi waaye itam ak dëkkandoo yi ak li nga xam ne mooy àqi sëy tamit ñu gën a koo moytandiku bu baax a baax a baax euh, mel ni sëriñ Bara dégg nga ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Abdou Lahat njaay waxee dañu ñëw ci rek ba tey fu sëy la ñuy waxtaane waaye itam jataay koor seen plateau jataay koor encore muy wéy di ànd ak génn di leen wettali euh, ci seen seen bii di euh, Rafah TV euh, Serigne Bara naka la jigéen war a amee ngërëmul borom këram te du jaam yàlla. jërëjëf soxna Kumba jërëjëf Serigne si nga xam ne ñoo fi jaar li ñu wax dafa am solo lool ndax daanaka boo seetloo question bi nga xam ne rek moom nga ma posé nii daa mel ni Serigne bi xaw na ko ton tuuti ndax li ñuy wax ne bu dee borom kër ak soxnaam. borom kër da ko war a toppatoo wax nañ ko waaye tamit soxna tamit ngir maanaam mu am ngërëmal boroom këram faaw day nekk ci ay ndigalam bàyyi ay tereem moo tax yonent bi ah, waxoon na ci boo xam ne dafa wax ne jigéen saa yu génnee maanaam kër borom këram te tàgguwut saa yu rek malaaka dañ koy rëbb kon yooyu day bokk ci nekkoon kon daa nekk waajib ci moom lu war ci ki nga xam ne mooy jigéen muy topp ndigalul borom këram bàyyi ay tereem waaye tamit di ko toppatoo waaye tamit di wan maanaam baat surtout nag wan baat jigéen ñu baree bari dañoo gaaw a tontu am na ñoo xam ne léeg dama leen koy wax ne leen yéen li leen yàq mooy da ngeen di gaaw a tontu te am na góor ñoo xam ne kenn du leen tontu ba leen tontoo rek daanaka euh, nit ñi ni nga xam ne dañoo bañoon mu am ci mën na ci am kon daal jigéen bu fekkee daal bëgg naa am daal ngërëmul borom këram faw day topp ay ndigalam bàyyi ay bàyyi maanaam ay tereem waaye tamit na gàtt aw làmmiñam waaye tamit tey muñ ndax sëñ bi sànq da ko wax sëy dafa nekk loo xam ne ni maanaam jihaad la mën nañu wax ne jihaad la te jihaad na képp ku ci nekk nag moom faw nga muñ la cay dal ndax dafa nekk loo xam ne nii euh, ndax jëmi say daa bokk ci li ñu tuddee euh, juróom yi nga xam ne moo tënk li ñu tuddee maqaasidu sariya mooy jubluwaayu sariya da ci bokk mooy sàmm sam xel sàmm sa bakkan sàmm sa diine sàmm sa alal waaye tamit sàmm li nga xam ne maanaam mooy saw askan see da cee bokk te juróom yooyu mooy yi nga xam ne moom la sariya te ci kanam moo tax kon ci la suñ borom daal di santaane digle nag ne léegi nañ daal di maanaam def sëy moo tax kon ci sa biir laaj boobu rek ci euh, maanaam ngeram li nga xam ne moom la euh, jigéen war a am ci borom këram ngir mu am ko yooyu bokk na ci loolu nag damay euh, damay damay dugal ci ñu leeral nit ñi loo xam ne war nañ ko bàyyi xel baax baax ndax suñu waxee sëy rek euh, léeg-léeg gis koo xam ne day toog lu mat maanaam 40 ans wala cinquante ans doo am soxna mu jaaxal nit ñi wala nga wala nga xool jigéen joo xam ne euh, day toog maanaam 30 ans doo am borom kër soo defee ñu naan dafa lambu déedéet loolu charia dafa dafa dafa dafa teg ay mbiram yoo xam ne mën nañ ko wax ci juróom yoo xam ne ci euh, wàllu sëy dañuy wax ne am na koo xam ne takk soxna da ko war kooku takk soxna dafa nekk ci moom maanaam warteef ci moom donte cosaan lañ ko sopp mooy koo xam ne góor la maanaam am na lu mu takki soxna waaye mën na koo dëkkoo mën na koo dëkkal waaye nag moom ragal na ne su ko takkul mën naa dem di mooy yàlla te suñu boroom dafa dafa tere njaaloo kon kooku dafa nekk ci moom waajib mu dem takki soxna dégg nga am na lu mu ko cane am na fu mu ko dugal waaye tamit lu war ci diggante moom ci diggante ñaar ñaar ñaar yi dañ ko ne mën na ko kon ba léegi bu fekkente ne moom su ko deful mën naa dem mooy yàlla kon kooku moom charia daan dafa nekk daan dafa nekk ci moom waajib mu dem takki soxna keneen ki nag mooy koo xam ne moom sopp nañ ci moom mu takki soxna mooy koo xam ne moom mën naa dëkkoo waaye tamit mën na koo dundal mën naa am can waaye kooku su ko takku tamit maam du ko tax yàlla kooku moom bu takkee soxna ci moom dañ ko sopp mu ñaareel bi ki nga xam ne maam tamit moom dafa dagan ci moom mooy koo xam ne moom sax aslan bëggut soxna moom moom moom moom moom mbiru jigéen sax kii ko waaye nag moom euh, su ko takkee du ko yàqal ak jaamu yàlla am dara dara kooku dañoo xam ne dagan na ci moom maanaam mu takk soxna mu ñett ñeenteel mooy ki nga xam ne moom dañoo sib moom mu takk soxna dañ ko sib mooy moom bëgg ko sax moom bëgg ko waaye nag jàpp ne su ko takkee rek mën na ko yàqal ak jaamu yàlla am ndax xam ngeen jigéen ni mel ndax fi ne jigéen moom boo dëkkee ak moom daanaka bu dee bu dee bu dee sama gi moom daanaka dëkk ak jigéen moom fi ne man dëkk moom damay xaw parce que ni nga ni nga mën a jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg day des ndax jigéen moom ak ay kiyam yéen ma gën xam daal waaw ab am na am na yoo xam ne euh, ay baax baax yooyu ñu ah, yooyu tudd baax baax yi waaye waaw baax baax yi nag moom daanaka bu dee ko xam ne waaw na sëy la moom waaye nag moom bu dee bu dee moom sama classe gi moom daanaka moom yooyu moom day tax maanaam xëy na jaamu yàlla geeg téere nga war a lii rek daanaka yooyu da lay kii loolu nag moom bu fekkente ne kook non est-ce que tamit doo am heure boo xam ne tamit euh, nga di ko euh, kii ak sa soxna di waxtaan ak moom ndax am na sëy yoo xam ne manque di communication da koy wax. loolu waaw gis na loolu tamit day yoon jigéen kenn du ko indi ci kër rek def ko maanaam comme meebul déedéet waaye tamit jigéen ñi daa am daa ma jigéen ñi daa am ñoo xam ne dañoo xaw fàtte te ñoom li ñu bëgg euh, daa am ñoo xam ne. vraiment ci plateau bi tey. <laughs> daa am ñoo xam ne ci bëgg fu ñu toog nga toog fa loo kii nga te Euh, xawatu ki daal te nit ñëpp nit ñëpp mën a bëgguñ ko moo tax ñu ne ko koo xam ne moom da ngaa mel noonu moom kooku moom moom dañuy sib mu takk moom dañuy moom dañuy sib moom mu takk moom ndax euh, war war ngaa nekk moom waaye tamit xëy na mën na la yàq lu bari bari kooku tamit dañoo si mu takk waaye ki nga xam ne moom dañoo xam ne dafa xaram moom ci moom mu takk soxna moom aslan moom euh, mooy koo xam ne maanaam mënu koo dëkkoo mënu koo maanaam dëkkal te nag maanaam fu mu toll moom day ma yàlla kooku moom dañuy dañoo xam ne moom dafa xaraam ci moom mu takk soxna ndax bu ko leen bu takkee ba moom ba noppi no euh, kenn ku ne def lante kooku moom euh, boobaa moom takk ci moom soxna moom day daal di nekk loxo moom da koy wàcc tamit yooyu tamit nit ñi nit ñi xel baax a baax moo tax léeg-léeg bu gis nit rek toog koy sànni xeer waaw parce que moom la ko la la ko cee takk soxna moom moom moo ko xam xëy na benn mën a nekk moom ci bay xëy na mënu ko ko yërugu ko ndax nag sariya dafa maam dafa fonk jigéen jigéen kenn du ko toroxal jigéen tamit kenn du ko teg lu metti xam nga doo bëgg nit ba noppi dem ngoro ko ba noppi ñëw tag ko andi andi ko sa kër mënoo ko jox dépense bu de maam lu mu dundee mënoo ko jox lu sol waaye tamit la war sa sa diggante moom ci wàllu bànneex mënoo jox loolu moom balaa te te loolu dañ koy dañ koy uh, uh, gis lu bari bari sànq rek dégg naa suñu bi di wax ne mbirum sëy yàggut waaye dama ci mas waxtaan ak borom benn xam-xam man tamit am am ma am fu ma liiroon ci benn téere gis ko fa ñu ne sëy juróom-benn weer la juróom-benn weer mooy mooy moom juróom-benn weer bu jeexee lu ko des rek maanaam yàlla yàlla ngay yàlla ngoro lay téye waaye sëy moom mi ngi tàmbalee ci maanaam juróom-benn weer waaw cër waaw moo tax gis nga li ñu tuddee maanaam ku takk soxna faaw nga def euh, li ñu tuddee xaw ma weer waaw waaw waaw diggante boobu kese maanaam moo waaw moo gisee bu jàll daanaka yow mm, sàmm ci njaboot wala ak maanaam ak yàlla tamit jaami yàlla moo daanaka moo tax mbirum sëy moom dafa nekk loo dafa xaw a euh, a sew ci biir kon daal soxna Kumba xëy na kon mën nañoo tënk foofu incha allah. jërëjëf nga xam ne rek noonu la ko Serigne Bara waxee yow leen da ngeen moom laal na leen bu baax. da takk jigéen macha allah mu mel na mu a mel ñëw ci biir kër gi di ba mu baax yéen ngeen di génn di jéggaan loolu lu ko waral ba ngeen génnee nag ne jigéen ñi moom sëyatuñ wala ah booy léegi du du yoratu ko moo dafa màggat laa yor léegi ndax bu ngeen def noonu est jigéen ñi moom ba tey daal seen valeur dina mën a nekk fa mu nekkoon ba léegi. soxna Coumba maa ngi rafet lu baax a baax euh, laaj bi di sant baax Cheikh Baara ci wax di yàlla kàddu yu am solo yooyu ak sang bi waa xam nga problème bi mooy doomu aadama ci boppam am na ko yàlla mooñe ni ko yàlla mooñe mooy euh, dafa lompoñ maanaam nu ma mooy dafa xaw a néew doole dafa xaw a faible ñëpp yemuñu régal boo gis am na exception comme ni ko sang bi waxe sànq am na ñoo xamante ne suñ ngoro seen soxna ba takk ko ba ba yàlla di jël seen bakkan wala ba ba ñuy màggat mbëggeel gi day gën di yokk am ñoo xamante ne buñ takkee seen soxna xëy na bañ koy takk ci cadre xemeem lañ ko takke woon loolu yëpp day dellu ci base nan lañ takkee soxna sax ndax bëri na ñuy wax naan sëy for forcé maanaam mariage forcé dafa am ñaari façon mariage forcé mariage forcé bu njëkk bi mooy tey am naa doom Cheikh Baara mii ñëw di ko bëgg si nekk ab paa sama doom nekk xale Cheikh Baara ne ma bëgg naa ko ma laaj xale bi xale bi ne ma bëggul ma ne ko nag ak dee danga nga sëy ak moom kon dama ko forcé mu sëy walla mariage forcé bu ñëpp xam la beneen mariage forcé bi mooy tey jii Moustapha nu ma ko may kumbaloo am na ko koy bëgg di góor dikk ne ko dama laa bëgg mu ne ko may tam dama laa bëgg ñu takk say ba bi ñu doxee as tuuti kumbaloo gis ne wax dëgg yàlla daal soxna sii ma takk de wax dëgg yàlla awma ci moom cofeel wala waa ji gis ne ah kii ma takk de awma ci moom cofeel léegi nag ñoom ñaar ñuy ànd di for waaw waaw yooyu yëpp day am gisuma gisuma ci moom wala gis lam ci doon njort néew ca mooy force di sëy ak moom kon ñaari façon sa forcé yooyu ñoo dañoo am ci sëy waaye pour man booy takk tamit takkal sa saytaane koo xamante ne ku xajam waaw waaw loolu day baax ci day baax ci day baax ci waaw day baax ci soxna sama soxna dafa cee baax nga takk koo xamante ne wax di yàlla ko xoolaabul ak ku defaabul tamit nag xoolaabul bi mooy soo ko xoolee sa xel fàtte loolu jigéen ñëpp waaye am na loo xamante ne bu la ci xutaanee sax nga fàtte lépp tamit da ciy baax waaye am ñoo xamante ne bu la tegee loxo fii ba déwén du yëg sax teg nañ la loxo loolu lépp la hmm. la mais da ngeen koy am ci biir kër gi waaye du tee tamit ngeen déggaane ba mu yàgg benn loolu jikko la gis nga ki tàmm dem di raasaatu même bu demee ba nekk pa toog ci buntu kër bi wala mu toog ci piliyaanam ci buntu kër bi sax bu ko xale bu baax rombee faaw ay bëtam bas ndax lu mu tàmm waaw loolu la yàlla ma koy natt yàlla ñu ci yàlla musal nag yàlla dana ko nattoo doomu aadama bu fekkee ne kadru takk ñaareel ak yooyu moom yow beneen affaire la waaye rasaatu moom laa xam ne moom euh, loolu moom borom bi jaaw du fa loolu moom waxu ma ko sëy mais li am sens ba am ba am mooy ci cadre say kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar xam ne jigéen yàlla daf ko digal mu sëy ci góor yam ci moom képp jigéen tamit góor tamit yàlla daf koo takk mu takk da ko da ko koo digal mu takk soxna waaye nag am na droit takk ba ñeent. waaw loolu d'accord nañ ko ñun jigéen ñi mooy tamit nag tëkkoo ba woo. nekk ci koñ bi chaque jour ñu ne ñoo ko. waaw sa deng-deng mooy jàppoo bàyyi woo loolu moom kenn bëgg. waaw jàppoo bàyyi woo xam nga neexul ci xol. rawatina ñun jigéen ñi di dawal mbege loolu moom kenn bëgg ko xëy na ki ko yàlla na natoo nag am na. wala nga sañse ba jekk macha allah mu ne ah, ki nga xam ne borom këram moo ma yor. yooyu yëpp yooyu yëpp xeetu xeetu xeetu xeetu kii la rek xeetu nu ko ma tuddee góor gu ñàkk responsable gis nga góor li ngay wuti ci àll ba rek moo sa li ngay wuti ci àll ba moo rek moo nekk sa kër jigéen ñi ñépp lan mooy seen différence. te li ngay xool ci àll ba boo ko toppatoo. góor kumpa la bañ kumpa gis nga góor la plupart su rombee xale bu jigéen lu mu lu mu lu mu lu mu tegu ci temps tegu ci temps ñu baal ma ci wax ji bu ko xoolee xoolaat ko dem ngoro ko ba takk ko su amee moom mois da ngay xam kii xemmem la wala du xemmem góor ñu bari nag am na ci ñoo xamante ne dañoo am dañoo am dañoo am dañoo am kii nu mu ko mën a dañoo am faible ci jigéen ju leen romb xemmem teef man na jigéen ma leen romb léegi ñu xemmem ñu xemmem ko su suñu ko xemmem am na ci ñoo xamante ne mu bu ko seen man-man amee matee mën nañ leen ci jaral sax ñu dem jël ndaw si financé ko takk ko ndax xemmem googu suñ demee ba ba ba ànd ak moom ay fan gis ne kii daal moom salaw moom la mu ci doon euh, wër xëy na barkeelu naa ca barkeelu waat ca kon mu bàyyi mu dem sax dafay daal di gën wala ñu mel noonu la plupart nag. loolu mooy gën mais duñ la yola duñ la duñ la yola man duñ la ba dañ lay teg ci kër gi rek teg la. waaw loolu jii kanam moom ku koy def ku nekk. njaa problème yi bari nag loolu moo ko indi. xam nga dañu say manque de communication day am sa diggante ak soxna da ngaa war a pare saa toog ak moom di waxtaan ak moom surtout sa saar yi kon ñu mel ne Serigne Bara moom dégg nga di nga xam noonu la ko waxee. waaw xam nga xam communication mënut a ñàkk sëy ndax communication ci nga labate woon ndaw si. bëri gaa yoo xamante ne célibataire yoo xamante ne mënut a déggu ne bu jàpp ne ña ñalaw mën a mënu moom. kon ña am na ñoo xam ne tey jii da nga naan sàngam de moom du wax ci mbedd du wax du wax ci kër gi bu génnee mi ngi koraasante xale jigéen ñi communication day am ci ñoom ñëpp ci ci ci ñëpp ñi ngi ñi ngi communiqué mais yàlla day dogal nag mën na am kersa boo xamante ne wax yàlla moom moom moom waaw waaye bokkut man ne man man naba maayen lay dund man boobu maa bu maa sang moom maa ngi nii man ni la ma yàlla binde man moom boo ma fekkee sama kër moom bu waxuma la sax léeg-léeg bu ma ñoo dee bunt bi maa soxna si moom moom àla belem damay yokk lu rajo bi sax ding-ding ba man dund ma yooyu man àdduna yëfi guddun laay moo koy nette moo koy kii doom mën ngaa am ku mel ne man nga xamante ne man moom euh, ci sama carrière dama ci bëri ay métiers yu ma def bëri na métier yoo xamante ne def naa ko euh, anti stress bu nekk dugg naa ca def naa théâtre def lépp nga xamante ne man dem naa ba dama amatuma ay def yenn yi man moom pour nga dund ak man du jafe mais léeg-léeg nga am koo xamante ne ab ab sang lay doon euh, am kersa te doo xam noo koy maîtriser léeg-léeg nga am soxna soo xamante ne day xaw a timide noo koy maîtriser ndax góor nu mu mën a mel jigéen mën na ko soppi. góor nu nu mu mën a mel donte day day day def la gën a ñaaw ci ñaaw ñaawteef ya bu jigéen gi yeewoo rek mën ko soppi. am na ñoo xamante ne seen communication seen jëkkër li sëñ bi wax na am solo mooy li jëm ci wàllum respect ci wàllum kàddu jigéen benn baat rek moo ko yàq muy tontu gis nga jigéen gu yeewu ci sëy nan lay def su sax su sa borom kër tàngee dikki tipaar ki sa kaw ay coow ne tekki rek. su la fekkee nga jàkkaarloo moom duggal sa néeg tëj sa buntu waaye jigéen gi gën a naqaree comprendre wala jigéen gi nag gën a naqaree dim di sëy mooy jigéen gi tontonteeg di jëkkëram du ma war na baat du ma baat moom jigéen gu ko ci wax bu yàggee baat war na la baat war na la gi mooy bu yàggee sëb say tas jigéen day muñ du ko tey parce que léeg nga waaye nag xam nga am nañ façon tont yoo xam bu ñu ko tontoo jigéen am na façon tontu yoo ñenn ñoo xamante ne façon tontu yoo xam bu ñu la ko tontoo boo yara dal sax sa xel day nekk ci dóor bu yàlla muy maîtrise mën nga leen dóor doo ko tey xam nga imaginer imaginer exemple lay joxe rek imaginer benn ma joxe benn tontu par exemple mhm. góor gi nga xamante ne yàlla dafa dogal amul liggéey nekk ci kër gi toog mi ngi toog ci kër gi sabab la sabab amul liggéey te soxnaa mi ngi ci kër gi bu soxnaam amul compréhension léeg ñu am réeroo mu ne ko ah dëgg yëng sa góor yi sa morom góor yi fay gàcce nga nga ne nga nga mel ne mburu mburu mu nga jaf xam nga boo ko waxee góor waaw xam day tàng wala mu mu mu mu mu mu mu yàlla dogal mu mu mu xaw wàññeeku ci ci ci ci ci ci ngóora nga di ko léebuwaale di ko xeebal ay ay ay man manam daal maanaam mun mënut dem bu baax a baax nga di ko xeebal ñàkk dem gi wala mu wala jox te mënu ko man yu mel ne tontu yi jigéen ñi tontu am na ñoo xamante ne seen tontu musiba la seen tontu musiba la moo xam bu ñu la ko tax rek da ngay daal di mel nekku nekkutu ci at góor ne ñi ngi def danañ def jigéen noo xam ne tamit day xaw a metti de ah, am na jigéen ñu bon waaye am na góor ñu bon am na góor ñu baax waaye am na jigéen ñu baax waaye am na góor ñoo xamante ne tamit may leen sa doom moom dara jël ko góor guy dóor jigéen kooku moom oh, xam bu ñu nee dóor bu ustaas ñoom ñi lislaam diggéen a dóor maam leen a dóor mais ci façon dóor yi nam mooy bu ñu demee ba ba nga tong ko ci lal beeg dox ya nga war dox dox ne jaar nga ci martaba yi nga war a jaar baa nga ci duma duma gën l'islam li mu ko tërale xam nga duma kaf lay doon goo xamante ne moom ay njoos lay doon waaye waxuma dagg arrêt tipp ci karam soxna si tertere comme am na xam nga damay faral def émission RFM émission boo xamante ne émission wàllum dimbalante ak wàllum thème de socialité am na ku ma ku ma mos a woo koo xamante ne dafa ma wax ne borom këram daf ko ba wax ci miir ba ba jëbi teppiku bi jëbi teppi ko Euh, photo na jëbi sax envoyé ma ko ak deret yi ak ak deret yu mel noonu kon loolu day wane ne kii nii jëkkëram est-ce que am na xol jigéen wax dëgg yàlla ah man la ma yor ci kër ga moom waxuma la dóor waaye moom sax damay day kaf man sax léeg-léeg di bëreeg man damay jéem a naj sama bopp ngir bañ koo gaañ say daf yee bokk bëre yàgg sa borom kër waaw waaw léeg-léeg ngeen songante bu songante bëri ah yooyu. maanaam daal mu mel ne da xool sax ñaar dañ ci ñaan ñi est seen ñi ngi say sax ngay wax. Ah, am na. am na ñu koy def manque de communication boobu mooy. communication la wala tamit nga dugg ci kër gi am yoo xamante ne nga ko sa soxna ah boo nekkee ci télé bi seetaan wala nga génn ah diw de moom tooy na fekk yi di tax mu def ko ba tooy yaa ko tere sa boo soxna ba defu ko. ñàkk bëgg rek da cee am na ñaare sëy bu duggin saaga ne ñuy sëy ñu la bëggante nañ bëggante waxuma bëggante gi ñuy al muslim aqul muslim war na mu bëgg ko de mais nobante. la plupart la plupart du ci sëy bi lépp bëggeel gi bëgg bëggeel ko xam nga tey ji bëgg gi ma bëgg gi ma bëgg sama sëriñ bokkut ak bëgg gi ma bëgg soxna si bokkuñu ñaari façon bëggeel la waaw kii moom bëgg gi ma ko bëgg euh, beneen affaire la waaw mais <laughs> mais boo demee <laughs> Eh, du mu mel ni eh, sëy yu bëree bëri gis nga rëng-rëng jeeg yeneen yi nga ci aju eh, gis nga ni nga xam ne rek noonu la ko Serigne Moustapha Dieng waxee mu mel nii lépp moom da koo sëf ñi waaye tamit góor ñi war nañoo mën a góorgóorlu ci jigéen ñi di communication di kaf di ree am na ñoo xam ne moom manque de communication am na ci biir kër yi waaye tamit série yi nga xam ne mi ngi am ci télévision yi yéen nga xam ne mi ngi rëng-rëngal sëy yu bëree bëree bëri mu mel ni daal série yi bëri na trop mi ngi bëgg a yàq société bi loolu sa gis-gis naka la ci demee jërëjëf soxna Kumba Euh, jërëjëf euh, sëriñ Baara sëriñ Moustapha ci waxtaan wi am na solo lool wax dëgg yàlla euh, li ñu fi wax itam lépp dëgg la xëy na dana métti nag waaye dëgg la mooy li xew ci société bi. di la santaat di la gërëm bu baax ci ni nga recadré waat débat bi ci rawatina ñu gën ko méngaleeg li xew ci jamono. surtout li nga xamante ni moom daanaka dafa mujj dëkk ak ñun muy média. Euh, xam naa doo yam rek ci série yi mais ci média yi surtout. <laughs> du am fit da ngay benn série am fit. waaw waaw moom day maye fit moom. média day maye fit da tey day maye itam ay pexe jigéen rek dafa bëri pexe rawatina nag bu amaatee koo xamante ni dafa toog ci ab néegam nas ab euh, plan ba yeggal teg ko te plan boobu ànd ak réussir su ko defee moom itam day jàpp ne bu ko defee man naa ànd ak réussir loolu itam day dellusiwaat rek ci ñàkk am référence. Euh, wala ñàkk topp suñuy référence donte ne am nañ ay référence sax parce que tudd nañ ci tàmbali bi soxna jaara gis nga ba nga xamante ni ñoo ngi koy muur ngir indi ko kër suñ Mor Anta Sali dafa daal di def listixaar ba mu tijjee kaamil ba ca la fekk aayu alxuraan boobu di wax ne Muhammad kat du doon bàyyi kenn ci yéen waaye yonent bi yàlla la boo xam ne mooy ki tëj risaala gi euh, mu daal di jooy ñu ne ko ndax da ngaa am looy ragal ci sëy bi mu ne déedéet aay bi mooma jooyloo ndax dafa maa wóor na ma du ma fa mën a jur ab sang du fa mën a jur ab yonent lu dul loolu kon ma ma mën a waat na mën naa faa jur ab yenent moom itam wax dëgg yàlla mu sëy fa sëy boo xamante ni loolu euh, référence am moo baax muy soxna sa astawaala mi nga xamante ni mooy léppam mooy waajuram di léppam kon bu ñu demee ba ñàkk ay référence nga xamante ni télévision yi rajo yi série yi surtout nga xamante ni léegi euh, gis nañ fi série yoo xamante ni ju jar ñu koy tudd waaye bu ñu ko junjee rek danañ gis ne euh, jigéen ñi ni ñuy góor ñi ci sëy yi dem ba nga xamante ni jigéen góor amatul sax baat ci biir këram loola jigéen bu ko dee def loola di mel ne luy jur bànneex moromum jigéenam di gis loola jàpp ne lii kat nii la war a demee lii mooy dëgg te fekk ne loolu demeewul noonu te ñoo ñooñu bu ak ñun bokkuñu euh, naanukaay ñun dafa am lu ñu bëgg sëy bi dañ cee bëgg am doom joo xamante ni doom ju barkeel la doom joo xamante ni doom joo ku ñëpp di dégg lay doon ñeen ak ñoom en tout cas nañu sëy rek même bu ñu ci amul doom nañu sëy nañu gere seen ménage en tout cas nañ ci génn daal kon ñaari référence yi bokkut su ko defee war nañoo gën a góorgóorluwaat bu baax a baax gën a bàyyi xel xam na ne euh, li ñuy won ci média bi nekkul ne loolu mooy liy dëgg am na ci loo xamante ni nag waaw dañu moom dañu wax ne dañuy yette mais finalement dañuy yàqale man euh, barki démb rek ci sama kër dañuy ndogu nii xale yi jàpp benn chaine de théâtre dama ne nañ ko toxal te li li fekk mi ngi am bu kenn jàppati waaw damay jël commande bi jàppe dem feneen parce que am na feneen loolu boroom kër yi am na série yoo xamante ni kenn wuru ko teg sax ci tele non seulement ci waxtu yoo xamante ni waxtu euh, timis la ñëpp di toog famille bi yëpp di toog nga gis ci yoo xamante ni naka sudul noonu la moo nga xamante ni daanaka méngoo wut ak benn yoon suñuy aada rawatina nag ci li nga xam ne mooy dox ci diggante ñaari yooyu sëy sëy góor ak jigéen nga xam ne foofu dafa am secret boo xamante ni wurul di feeñ buñ ñëwee ba de ko dàng nag ci télé bi ku nekk di ko gis ci internet bi fu ne foo tàppe gis loo xamante ni naka su loole loolu dafa mel ne dafay jur yàqute yàqute jamono gu rëy rëy loolu nag mooy waral lu bëri bëri sëy yi daanaka amatut stabilité comme ni ma ko waxee fase yi bëri loolu dangay gis koo xamante ni dañuy wax ne màggalu euh, euh, weeru Kazu Rajab de sëy yu bëri bëri dana ci am waaye amaana buy del siwaat sëy yu bëri bëri dana ci tas loolu tam bokk na ci la ko war mooy ñàkk am objectivité ci Kazu Rajab bi waaw gis nga xaaj ba xaajaat ba malheureusement doona doonte ne dañ cey sàkku barke ngir mu yàgg waaye nag jublu ga mooy duggu ga ci boppam dafa amutoon ak ixlaas dafa amul euh, sellal ndax jigéen buy dugg cib sëy war na caa ànd ak duggiinu euh, la soxna sa defoon ne bu bu may dem sama kër borom kër nañ ma jaarale ci armeer yi door maa yóbbu ci sama kër ñu ne ko loo jublu ci li mu ne damaa bëgg bu ma jugee fii ñëw fii bu ma jugee ci sama kër ñëwaat fii kooku dafay dafay sëy dafay seeyi kon kiy seeti ak kiy seeti kiy seeti ak kiy sëyi ak kii seey yi bokkuñu ki nga xamante ni day seeti moom bu gisee lu neex toog su gisee lu naqari dox dox doxam. lu neex di tagg borom këram waaye bu gisee lu ko naqari day ŋàññi borom këram. day ŋàññi borom këram tàppaas ko mu may ko baatam mu dem su ko defee nag ñu ne góor ñi munut góor ñi ñoo muñut doo ñoo mu fekk ne jigéen ci waxam am na ci ñoo xamante ni la yàlla xam doy na dañ jul xaar fenn euh, euh, aw naqar. moom dañ ñaan man kenn du ma rey kenn du ma rey euh, nuñ koy waxee sax ke man du ma dund ci stress kenn du ma rey des fi kenn du ma rey des fi googee rek mooy tax ko duñ nangu kenn ku leen teg stress. ñun dañ koy jigéen ji day toog ci kër gi di muñ léeg-léeg ne ko xanaa amoo xanaa amoo kër waaw loolu itam ci xeeti wax dëgg yàlla du du du jëfi. il dugg fee. du jëfi responsable ndax wax dëgg yàlla xanaa amoo kër moom kenn du ko wax jigéen ndax koo xamante ni bañ koy muur guddi la woon ñu teg ca muuraale ko. ñëw indil la ko dénk la ko ne la na nga ko suturaal te sax jigéen ñi dañuy faral di wax naan bul dóor bul saaga américain lañ la indil <laughs> loolu itam am na ci loo xamante ni euh, baax na waaye nag am na ci wàllu goo xamante ni baaxut ndax américain lañ la indil moom wax dëgg yàlla dañ ko waroon ko ab taalibe lañ la indil ab taalibe moo gën ab américain parce que boo ne ko américain laa la indil rek moom bu fa ñëwee fekk fa ab anglais ab américain ko anglais moom mënuñoo ànd su ko defee tam eh, eh, expression yi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax bul dóor bul saaga ab taalibe lañ la indil. lañ koy jublu waaw ambiance lañ ci jublu mais nag des fois baat yooyu day mujj doon euh, réalité ci société bi moo tax xeeti baat yi ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax ay man kan kenn du ma rey de des fi yooyu noonu man kenn du ma teg stress te lu mooy stress xam nga way nañ ko am na woykat bu ko way stress euh, waaw mais stress ak sëy ñoo ànd sëy sëñ bi wax na léegi waaw sëñ bi sëñ bi wax na léegi juróom-benni weer wala juróom-ñaari weer yi rek li ci des lépp ay muñ la ak i nattu ndax suñ mag bi rek naa dafa am euh, ñu mu doon dénk ca jolof ba mu leen ñaanalee ba noppi ñuy dem mu ne leen kaay leen ma dénk leen bala ngeen a samp kër am kilifa gu mag daan ne ko am ah, mbaake loolu mooy wane kon danañ samp kër mu ne ko loolu de yitteelu ma ci wax ji waaye li ma ci yitteel mooy bis bu ngeen sampee kër na ngeen xam ne jigéen ñooñee ngeen jël ba denc leen ci seen i kër jurule leen jëndu leen jàppoole leen ci toole xare la ngeen def ci ñoom ba mën a ba mën a ba mën leen a dagan su ngeen defoon téeméer tax ngeen dagan ca seen i càmmiñ yu góor yi ci kër ga dagan ci yéen kon yàlla moo dogal ne da ngeen war a ànd mu boole leen kon su ko defee war a ànd ak bëgg a ànd ak euh, sañ a ànd yooyu yëpp dafa am ci biir sëy xeeti sëy yi nga xam ne du ñàkk sëriñ bi danañ ci détaillé ci bu baax a waaye ñu gën ma xam ne daal euh, dañoo war am référence ci sëy bi bañ a jël média bi mu def def ko référence te média bi itam euh, ñu xool seen àq seen digganteeg yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci xam ne société bii ñuy dund société jullit la société boo xam ne dañoo bëgg mu am stabilité amuk dal wax dëgg yàlla war nañ ñuy jox ay ay ay ay séries yoo xamante ni lu mel ni daaray Kocc mën naa ko tudd wax dëgg yàlla référence lañu daanaka néewaa na nga gis sketch wala théâtre yoo xam ne day day yeete ci wàllum say jigéen nan lay def ba mën a am doom yoo xam ne ju barkeel la jigéen nan lay sonne nga gis jigéen yoo xam day sonn lool boo seetaanee lu mel ne euh, théâtre góorgóorlu nga gis ne ñaari couple la boo xamante ni vraiment euh, bu bu jar di indiwaat la góor gi day jaar fii liggéey jigéen jaar fii liggéey yenn saa yi góor gi dem du am jigéen ji ne ko mu muñal yenn saa yi góor gi dem indi kër mu neex mu ñëw góor gi jigéen ji ak yiir ko teral ko jëndal ko ci ay ginaar defaral ko ba mu baax loolu dëgg-dëgg mooy référence ci biir euh, maanaam média bi loolu la war a deen média toujours dafa war a jouer rôle ci société bi nga xam ne ci lay dund société bi am nañ problème mu sëy ndax gis nañ fi sëy yu bari bari mi ngi rëngi-rëngi sëy yu bëree bëri daanaka melut na mu war a mel loolu nag média bi da cee am part de responsabilité bu rëy ngir taxaw ci fexe ba dem bay waaram ci sëy yi nga xam ne mooy am sëy yi contrat yeeg sëy yu yaama neexi sëy yi intérêt yi yooyu yëpp day am comme ni ko sëy Moustapha waxee takk suuf yeeg yooyu yëpp daal moom doy na waar yenn saa yi nga ne góor ñi la yenn saa yi nga ne jigéen ñi la waaye daam lu ci mën a xew daal euh, kenn ku nekk ci ñoom daal xëy na am na ci part de responsabilité boo xamante ni war nañ ko ci gën a bàyyi xel waaye nag di delloowaat nag ci yént bi sallallahu la mu waxoon ca góor ga nee na euh, iza raaytum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu su ngeen gisee koo xam ne diineem doy na leen ngorom doy na leen muy diine je na ngeen ko jox seen doomu yoral leen ko ndax koo ko mën a yor la léegi nag li ñuy gis ci sëy mooy dangay gis koo xamante ni euh, dañ naan ah ñëw na ñaan si ñu ne lu muy liggéey la ñuy njëkk a laaj duñ xool ba xam am na diine wala am na ngor lu muy liggéey la ñuy njëkk laaj su dee moom kat directeur général la ñu ne ah, moom kat nangam la moom ministre la moom nangam lu mën a xoolatuñu dara mbaa am na kër boppam mbaa am na liggéey mbaa am na oto mbaa nangam nangam waaw su ko defee yooyee boo ko dee xool cib sëy nag boo demee ba ci biir gis nga mu fe mu mel ne dafa am benn góor goo xamante ni bi muy mayee soxna doomam daf koo mayee ci ay conditions dani sama doom ji koo xamante ni euh, mën ngaa muñ ñetti karwaas yoo xam ne ma mën ko teg sam nel doo doo doo yëngatu doo raf doo doo def dara soo ko defee rek ma jox la sama doom ji Euh, am ñoo xamante ni dégg nañ ko ñëw waaye mujj ñu eggale ndax karwaas ga dafa saf te nel karwaas ci am nel moom euh, lu yéeme la waaye am koo xam ne moom yàlla dénk na ko fit mu ñëw fexe ba ñetti karwaas yépp mu dékk ko rafut deful dara góor gi ne ko ay aywa jëlal sa soxna mi ngi waaye gis nga soxna si ba mu demee di sëy góor gi lim ko lim ko wax mu ne ko bay boo nga dee fa ndax kii kat eh, ak canam kenn mënu ko delloo te du te du man maa koy delloo bay boo kon nga dee fa kon am na ci xeeti sëy yoo xam ne dafa mel ne am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi dee ci seeni sëy te dara wërulu ko lu dul nañ ca duggee woon boo ñaanee sa baat delloo ma la ma la joxoon te yow wax dëgg yàlla amatoo ko kon nañuy xool bu baax a baax li nga xamante ni noonu la ñu duggee ci sëy ndax sëy noo ca duggee rek noonu ko cay génne mujj foofu rek ndax euh, émission bi jërëjëf soxna Kumba di la sant bu baax a baax di la gërëm ci wax ne thème bi xam naa dañ ko doon door a ubbi rek waaye dëgg dëgg sax waroon nañu gën a duggaat ci biir waaye lu dul jeex moom ñaan naan gu dul doy loo ci am rek dafa lee daal doy euh, te sëy dafa doon loo xamante ni lu ñu war di waxtaane la saa su nekk ndax loo xam ne saa su nekk mi nga am te saa su nekk ñu ciy gis itam ay conséquence loolu war nañ ci gën a waxtaan bu baax a baax di la sant bu baax itam ci euh, thème bi nga xam ne indi nga ko tey euh, di sant itam bu baax a baax sëriñ Bara Fall moom itam ci leeral yi nga xam ne leeral na ko waaye naka noonu sëriñ Moustapha ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci euh, technique bi ñu ngi leen di sant bu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñun ci seen émission bi nga xam ne dañ koy am ak yéen saa su nekk ci weeru koor di euh, jotaayu weeru koor euh, di leen sant bu baax a baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Ndiaye kàddu yi am na solo kon ñëw rek ci sëriñ Bara Fall euh, mu defaal tamit kàddoom yu mujj ndax wolof Ndiaye kat nee na lu jiw a jeexul lu nekk jogu fa mu mel ne sëriñ Bara dégg nga ni nga xam ne rek lépp euh, ci sëy la euh, wareefu sëy ci jotaayu koor ku ne xam ne wareefu sëy ak la ci aju rawatina yéen waa yéen ñi nga xam ne yéen yaay ustaas yi nga xam ne yéen ñuy gitee ci lislaam bu ñu jàqee yéen la ñuy seet si bu ñu amee leen loo xam ne rek lënt nañu tam itam yéen la ñuy seet si mu mel ne mënu leen a ñàkk société bi li nga xam ne wax nañ ko fii maanaam dëgg-dëgg àq ji naka la fa demee nga waxaale sa euh, kàddu yu mujj. soxna Kumba euh, wax dëgg yàlla li fi mbokk yi wax moom daanaka dafa gën a rafet lool ndax rawatina li wax ci sànq ci wàllu xeeti théâtre yooyu ñuy def série yi moom wax di yàlla moom baaxul man bañ naa ko sama soxna dama koy tere man dama koy tere ndax dama ne ko ñi ñoo rey parce que ñoom li ñuy wax ak li ñu dund bokkuñ ndax léegi ñoom dañ dañ ko bind rek jox leen ko ñu koy joué mais ñoom li ñu def seen kër ñoom duñ ko def noonu tamit laa koy def su ma demee ci école ba jàngale gi tamit xale yu jigéen ya fa nekk yëpp dama ci waxtaan ak ñoom ne leen yooyu bu leen ko nangam parce que yooyu day yàq nit waaw euh, diggante nag maanaam euh, borom kër ak soxnaam moom ci li war ci diggante sànq juñu naa ñaar maanaam topp ndigal bàyyi ay tereem waaye téye làmmiñam waaye surtout nag bi nga xam ne moom la jigéen gën a mën tam gën a bon mooy defaloo ma dara defaloo ma dara day am benn soxla laaj la ko amoo ko rek mu mu ne la yow musuma ma dara man gis naa ci koo xam ne nii wàcc na ci soxla mais yow ka ñëw waaw ka ngoro la euh, maanaam takk la joxe can benn mu yëkkati cinq cent mille wala un million jox la ko indi ci kër gi nga am benn problème mille franc laaj ko mu jox maanaam joxuloo ko wala amuk nga ne ko yow musuma defal dara moo tax ñu ne jigéen mooy day maanaam pour la du gërëm ña daaw waaw moo tax kan tamit maanaam ci côté boobu kon jigéen ñi war nañ cee gën a bàyyi xel baax a baax te xam ne sëy daal euh, mbirum jaam yàlla la te sëy moom kenn ku ne la nga sóor rek loolu nga yekk te nag soo bëggee am ëllëg ak maanaam njabar gu baax ni ko maanaam kilifay waxee soo bëggee am maanaam am euh, soxna jaara faaw da ngay nangoo maanaam sëy te loolu nag li ko may mooy dangay gumba tax lu topp sa maanaam borom kër waaw waaw waaw ji waaye tamit góoñ tamit maanaam sama bopp laa koy tàmbalee war nañoo gën a maanaam am yërmaane ci jigéen ñi ndax suñ bi junñu ko sànq ci aaya ba suñu boom daa wax ne mawadda ak rahma da ko boole ñoom ñaar la wax baynakum la wax waaye nag yow na nga fexe yow góor gi sa yërmaane gën a ëpp ci jigéen gi ndax yaa ko jële seen kër xamut kenn mu ñëw ci yow ndax dañoo xam ne sëy yow maanaam góor jigéen dëkkut maanaam amut amut kër baay kër borom kër la kon nag soo ko jëlee ci kër baayam andi ko yow kon yow da nga maanaam ko war a laal maanaam yërmaande kon di ko yow tamit di ko muñal ci yu bare bari ndax jigéen ni nga xamee xel mi daanaka kiiut noonu léeg ay bëgg-bëggam mën na ko poussé ba mu def loo xam ne ni yow daanaka du la neex waaye tamit yow yaa xam ni nga koy mën a mën a supporté ba ba mën koo mu ñëw ci loolu moom daal euh, thème bi moom wax dëgg yàlla moom euh, thème bi am solo la ndax damay xam ne ñaar moom ñun Sénégal dañ ko xaw a dañ ko xaw a fayee mbirum sëy wàllu nikaax ñu bëree bari fi nga xamuñ ko ak wàllu miraas te ñaari mooy yi nga xam ne ci la julli yow julli moom kii nañ kii nañ ko waaye moom ñaar moom mbirum mbirum sëy moom ak wàllu miraas moom war nañ di ko gën a leeral nit ñi bu baax a baax ñu koy gën a xam su ko defee léegi kenn ku ne doo dugg ci leer xam naa kon dañuy tënk fa euh, ma kàddu yi di santaat mbokk yi fi kii ñëpp daal wax di yàlla jotaay bi moom euh, maanaam am na solo dañ fi génte maanaam xam-xam na fi tamit euh, ñi fi wax ñëpp dañuy wan ne ñoom xam nañ dara ndax waxtaan li gën mooy nga teg ko ci dalil man loolu laa gëm man fi ne waxtaan li mu bëgg mooy nga teg ko ci dalil daa waaye boo xoolee ñëpp la ñu xam kenn ku ne amu foo xam ne nii euh, da nga faa sukkandiku kon ñu ngi leen sant bu baax a baax di di jox euh, ñi nga xam ne ñooy seetaan dig ndaje ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bara Fall euh, kon ni nga ko Serigne Moustapha Serigne Abdou Lahat ak Serigne Bara moom mel ni mën naa ne matale nañ. Hmm. kon xam naa da ngay ñëw ak sa kàddu yu mujj gën a ñaax sa mbokk seen yi nga xam ne dañuy takk jabar sànni leen rek ci kër gi maanaam daal génn di doxaani rek xam naa ci loolu ngay kii rek teg sa kàddu yu am sa lu baax maanaam am sa soxna su baax. Hmm. di defar ba mu baax. di defar xale yi toppatoo sa yaay toppatoo sa papa dara maanaam daal dara paralysé wul ci diggam ak yow ci biir kër gi nga dem nag di jéggaane leneen wala nga toog rek sa digg la di saan séri xale bi moo ba tooy xale bii xam nga moom tam day gis boppam ngeen góorgóorlu bu baax. ak sa kàddu yu mujj. macha allah émission bi moom neexati na la ñuy wax ko parce que Rafa moom yàlla daf ko bakkee wax dëgg yàlla ñaan yàlla yokk sutura si rek lu ñu def yàlla daf ci wis xorom. parce que plateau mun na nekk ci ay télé yu ñu gën a xam mais njariñ mën na ëpp fii ndax euh, li fi teew wax dëgg yàlla tey li ñu njariñ feeñ na ci donc di sensibiliser rek ci jigéen ñi ñu gën a góorlu ci sëy yi gën a yokk muñ gi ndax jamono neexatut surtout jamono yi ñu toll ndax xam nga ne Covid 19 bi moom démb rek bi ma àndeek Moussa Diop ñu doon def benn patrouille ci biir dëkk bi ci guddi gi ci ci ci ci couvre-feu bi Euh, démb bi ma duggee rajo ICAP FM maa ngi koy wax euh, mas euh, Pape naan ko jigéen ñi nañ gën a góorgóorlu ci yërëm seen borom kër yi ndax am na góor ñoo xamante ne ngor rek lañ am ak sutura waaye lañ mënoon mootuñu xaaj bi imagineel moodu mood bi nga xamante ni ñëwoon na lu jiitu màggal bala mu dikkoon fi kesare ak léegi dikk toog mënatut a dem lam yoroon lekk na ko ba mu jeex moog waa këram ngor rek lay mën a dese léegi nag su amee jabar joo xamante ne dafa mel ne kumba biige moom la mu làmmiñ wu saf la yore saa bu xëyee da koy dëkkal ci bu noppam baat yoo xamante ni dana jar xaru kon jigéen ñi nañ gën a muñal seen borom kër yi ci lu jëm si wàllum def-def bi te xam ne comme ni sang bi wax rek ki ngoro woon def ci yow 1 million wala 500000 soo dikkee laaj ko 1000 francs am na jigéen ñoo xamante ne tamit dama ko waxoon fii keroog naa ko waxaat am na jigéen dañoo mën a laaj dañ lay laaj a laaj ba nga tëdd ñu fëgg la di la laaj garabu yow am na ñoo xam ne noonu la ñuy mën a laaj waaw di la laaj yu xorom yoo xamante ne noonu la amee tamit góor ñoo xamante ne laaj bi day wal xolu góor waaw mi noonu góor ñoo xamante ne ñoo gën a ñàkk jom ñàkk jom am na ñoo xamante ne góor ñoo xam ne a ñàkk jom ñàkk jom jigéen soo ko yoree di muy sa muy sa muy sa muy sa muy sa soxna na gis ci yow fulla ak fayda ak nangoo liggéey jigéen toog yoree ta tegalee tànk yoru ko faaw ngay dem di ñafe ji di indi di ko susuraal liggéey di ko muñal si am xelam mu gàtt ñi ko war a wax am na jigéen ñoo xamante ne seen xel dafa gàtt parce que xëy na noonu leen yàlla mooñe jigéen saa bu nekk bu meree man naa wax lu tojum penc waaye su kontaanee mën na laa def mën na laa def lu rey nit yàlla leen ko mooñe mën naa mën naa mën naa mer wax loo xamante ne tey ji toj na waaye su su jàmm rek amee ba ba sëñ yi sëñ bi di ba mu am <laughs> tarkal xaw am nga moo tax kon faaw ñuy neexal sëy yi faaw ñuy neexal sëy di xëcc jàmm toujours rek te bu mer amee ñu ànd ak sago Ah, bu mer amee ñu ànd ak sago di góor gu mat bu sa jigéen bu sa soxna sax bu tàngee ba tàng mu leer na la kii tàng na génnal kër gi dem soo génnee kër gi dem taxaw ci bitti ba moom meram giif ngeen di ko waxtaanaat lépp ñuy waxtaan ci biir kër gi nañuy waxtaan te bañ waaw waxtaan te bañ a teel di dugal parents yi ci sëy waa bañ ci dugal parents yi teel ko dugal parce que parents yi bari boo dugalee sëy yi la ñuy àtte mooy seen xolu njureel la ñuy àtte bu dee jigéen gi la yaayam ne moom ko dama ko jox sama doom waaye yoru ko su dee sa yaay yow mi ko góor ki yaay mu góor ki daan waaw waaw lii kay ku jur metti na la ñu lay def nanga maanaam commencé parents yi ki niñ niñ ci yeex a dugal di waxtaane ci biir néeg yi jeexale nag ci série yi série yi maa yàlla na yàlla li may wax mooy yàlla na yàlla dollee yërëm réewum Sénégal Sénégal diine daf fii néew doole lool lool lool bu ñu ko sañee wax la la la sag ba doon wax naan ak diine yàpp kii fi Sénégal moo ci am diine mi ngi jooy Sénégal ba léegi dafa ñàkk ndey lool lool lool Sénégal am na ñu koy jéem boo jéemee sax di jéem a défendre diine gaa yi dal sa kaw ku ko laajal ñoom Imam Massamba Gueye ñii di xeexal diine ci yii am ci ci télévision yi te du yoon loolu la la ñuy dégg loolu la commentaire bu ne la ñuy dégg ma dangay gis sax koo xamante ne day si seen si seen seen njaboot ñoom di xool ay sikk di leen ko commentaire te fekk na ñoom diine la ñuy défendre ñiy défendre diine ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a sonn kon rikk waaye nañu jéem a xam ne diine moo tënk lépp te képp kuy doyadal diine bis buñ la laxasee ba dugal la ci biir bàmmeel da nga xam ne lu dul diine lu dul diine caaxaan la télé yii ñu nekk ci biir ci biir dëkk bii di Séné ci réew mii di Sénégal télé bu ci nekk la ko neex la def Sénégal am na mais Sénégal la plupart du concentré wul ci diine à 100 moom ay jukko lay di concentré wu mais diine daanaka du ci concentré wu parce que bu doon xool diine moom ab télé du tàkk Sénégal bu doon xool diine 100 pour cent télé du tàkk benn télé du tàkk Sénégal ndax bu boobaa bëri na ci yoo xamante ne diine off na ko bu yàgg. kon nañ ñaan yàlla yàlla yërëm réew mii di ak nit fi nekk ñëpp yàlla na yàlla dollee yërëm ci barkeb mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo fi nekk waaw kon daal moom lu du doy naan woo xamante ne day dolli mar nag jàpp naa ne boo a galaas day jargatal kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp sëñ Abdoulahat mi nga xamante ne mooy itam jukkay turandoo la yore ñu ngi koy jaajëfal baax a a baax ak Cheikh Baara mi nga xamante ne jukkay turandoo la yore mooy itam yow tey nag sa émission dafa dafa sange waaw Cheikh Abdoulahat fu mu toog Baara waaw ak Cheikh Mbour Moussa ah waaw waaw xam nga xam nga loolu <laughs> loolu moom tawféex la loolu ñaan nuurun ala nuurin kon yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawféex te musal ñu ci mbas mii mu jële ko fi nu mu gën a gaawe ba kenn ku ne ma del ci activité yi man de sonn na xaw ma ne keneen waaw ah, man moom sonn naa lool ah, te ni ma sonnel noonu la gaa yi sonn ñëpp sonn yàlla na yàlla doolu ñoo dimbali si baax Sëñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Moustapha jërëjëf Serigne Abdou Lahad jërëjëf Serigne Bara kon mbokk yi nga xam ne rek yéen a doon seetaan Tapha TV euh, gis ngeen ko tey ci seen émission jotaay koor ci wareefu sëy euh, ku ne xam ne ne émission wareefu sëy moom yaakaar naa ne mën ngaa def ay émission émission te du jeex kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam yàlla def ci réew mi jàmm jeexal fi mbas mi indi fi sutura teranga sant bu baax suñu techniciens yi nga xam ne tubaar fakala macha allah ku ci mel ni ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm yàlla mi nga xam ne rek mooy borom jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm musul saar jéggi saraat ñàkk sens ordonnance si poos ak suñuy poset tamit ñu ay taax defal ñu ay teraanga ban man di taloore jërë ngeen de fi amaanillah Ah! TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer